yow en tant que euh, jeune chanteur en tant que euh, wéykat en tant que jeune ah ñu gis euh, Mañaan kii nu mu tudd ci encore. Madiagne. Oh. Aïcha ñu ngi ak Mañaan Meng chanteur ah ñu gën ko xam ci wéy boo xamante ne wéy na ko fi muy xarit boo ma laalee am boo ko laalee laal ma mu ñëwaat tamit à chaque fois ñu koy gis sur scène moom ak Wally nuyu nañ la Mañaan. Euh, maa ngi lay fay bu baax a baax xale bu bel bi xale bu dégg bi ah di nuyu mbay mi nga xam ne moo la réew mi ah. mbay mbay mbay vidéo yu rafet yi ah <laughs> mbay moom ruq bu ne lay dugg man dama jóge ba caag gestu rek gis ko. <laughs> mu ngi fu ne nag. kii du nit. mu ngi fu ne moom mooy Sénégal mooy uh-huh. Sénégal de vraiment uh-huh. mi ngi liggéey liggéey bu mucc ay nag wax dëgg yàlla vraiment partout dans le monde ñëpp ngi koy bàyyi xel uh-huh. vraiment doomu tay bala nekk fii Ndakaaru ah di bay waaram ci musique sénégalaise ah yaa ngi bay sa waar uh, uh, man nañu xaar yeneen single mën nañu xaar sa album parce que léegi on que chanteurs yi dañuy débuter ci seen carrière rek ñu ñu génnee album comme euh, euh, Bambaly Seck nu mu ko defee. waaw ah, man nag damay liggéey bëgguma tëb tëb rek di génne wax dëgg yàlla maa ngi sama ruq. di créer ay affaires yoo xamante ni parce que sénégalais da ngay def bomb def musique bu mucc ay bu ko defee bu ko ko. dëgg la yàkkamtiwuma daal. a mhm. booy wéy da ngay wéy loo xamante ne nit ci dinañ la forcément dinañ la mën a bàyyi xel euh, ñu doon gis tout le temps nga nekk nekk sur scène ak Wally ñu toog benn ins gisatuñ la euh, lan la lu xew. amee dara Wally moom xam nga Baye Fall la aussi euh, nit la boo xamante ni wax dëgg yàlla man bu ma sañoon chaque jour ma dem ci moom. mais nag dama nekk suma roq di liggéey wax dëgg yàlla nekk samay programme nekk samay préparation. si nga li ma war a génne incha allahu rabbi. ñu jotoon dégg tamit ay ay ay ay yenn euh, commentaire ak yenn critique ne Wally dala doon forcé nit yi te benn instant tamit gis nañ ne di <laughs> Mbadou la laa def ay moom dala c'est comme si dala utiliser euh, daf daf la jël arme pour pour xeex la parce que ñu ngi gisoon euh, waaw waaw waaw bu ñu gisee euh, mbañaan seeg dem fële ci suba teel moom mu daal di lay xëcc à chaque fois ngay feeñ ci sur léegi nag toog benn ins gisatuñ la léegi gars yi yaakaar ni daal dala doon exploité quoi xam nga benn affaire dafa am mhm. Wally mhm. dafa bëgg rek esprit partagé rek la am mhm. jàpp na ni ku mu gis danga war a dem jàpp na ni aussi ku mu gis war na def ak yow dara artiste la boo xamante ni artiste yu bëri war nañu roy ci moom c'est très important parce que am na nit ñi ngay gis partout dans le monde ay Nigéria boo gisee seen musique am doole mooy que ñi nekk ci suuf sax dañuy def le tout pour public bi nit ñi mën leen xam léegi nag fii Sénégal mi ngi ci liggéey liggéey bu ma mucc ay moom Wally Seck moo tax du question ko di la xeexee mais day bëgg aussi nga ñëw ngeen partagé te man dama yàgg am yëg-yëgu ñëw def dio ak Wally muy woy may

ñu gis ni caat euh, Seck def loo xamante ne gars yi ñu ngi koy euh, rafetuwuñ ko ah maanaam mu mel ni day jaxasee euh, ñaari ñaari ñaari ñaari milieu ah, lu mel ni ci Pape Diouf ak Waly démb mu dem ci Pape Diouf daal di fay def loo xamante ne gars yi rafetuwuñ ko yow ban jàngat nga ci ak ban conseil nga koy jox. amee ah, conseil bi ma koy jox moom laay jox sama bopp moom laay jox artistes yëpp mhm. bu ñu fàtte ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. Mhm. musique. Mhm. dundula la benn temps la rek da ngay dem sa morom ñew nañu nañu nañu nañuy partageante ça veut dire que nañu joxonté micro yi ku ci nek di di di parce que la majeure partie dama déglu caat muni dama amone yeg yegu rek dem tok déglu bab Diouf muy way loolu rek dama ci kontaan kon je pense kooku liko indi moy def partage ak yow est-ce que comprendre bab Diouf aussi moy suñu mak moy suñu kilifa te je pense ça monsieur est certain ni xam ni sax li la fa xew leer na mën yëgu ko comprendre li ma la kon nag li ma koy euh, euh, conseiller suma mag la caat nit ku baax la xool bu rafet la am parce que man xam naa ko depuis pire bu ma gisee dina xam ni Madiagne nii xam na mu baax a baax li ma koy conseiller rek mooy que bu mu déglu ma Samba bu mu déglu ma Demba suba bu ko yëgaatee na delluwaat soirée Pape Diouf man loolu laa dara ñaaw jarul muy ñaaw parce que Wally mi nga xam ni moom la bëgg à chaque fois moom noonu lay doxee moom waxul kenn waxal ma kii lii waxal ma kaala moom bu sañ xeexlawul kenn kon kooku boo ko amee je pense li am solo mooy nga ñëw baal si ko mu jox la micro nga woy ba kontaan Pape Diouf Waly ñoo bokk ndey ñoo bokk baay Waly wax na ko ca ragalu ci dara nee leen Pape Diouf mooy sama woykat loolu lu ci waay man mënu si dara coow laa ngoog si dara c'est